voilà jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci 24actu.com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne euh, tey jii nag dana koo jagleel lépp loo xam ne rek jëm na ci centre de redressement yi nga xam ne coow amoon na ci euh, ci Serigne Modou Kara Mbacké ngir ñu fas yéene cee dalal Souleye Sock euh, moom moo jiite zone penku Diourbel Daaru Muxti ak Touba ak Mbacké fas yéene sekk ak moom waxtaan ak li nga xam ne rek moom moo ci yees dañu koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci 24actu.com Serigne Souleye ñu ngi lay nuyu karati alhamdulilah bismillah inna wali allah jërëjëf sëriñ Touba sëriñ Ousseynou ñoo ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu sa caméraman bi nga àndal di am mbégte lool teew seen studio ngir waxtaan ak yéen ci ni nga ko waxee léegi ci wàllu coow centre de redressement yi ñuy tudd di ci tudd Cheikh Amadou Kara Mbacké ak kuréelam gi ma nekk euh, jëwrinu diwaan siwarkul jawaar yi fi abaari saraayir ci zone bi ñu wax muy zone penku tàmbalee njaareem Mbacke Touba ba dem Daaru moxti mhm. ma jiite ko depuis 2009 ba tey moo mhm. tënku ci juróomi cellule cellule bu Njaareem ku ñuy wax Serigne Khadim mbay jiite ko mhm. cellule bu Mbacke ku ñuy wax ab Abdou Kassé cellule bu Touba Daaru Marnaan ku ñuy wax Serigne Khadim mbay ba tey cellule bu tubaa HLM ku ñuy wax Serigne Pape Diop cellule bu Daaru Muxti ku ñuy wax Serigne Thierno Thiam. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu ànd tënku mm-hmm. Serigne bi jiital ma ma nekk seen jëwrin mm-hmm. ñu liggéey ci diwaan bi. loolu waaw. Euh, laataa ñu dugg ci euh, waxtaan bi dëgg-dëgg nga leeralal ñu kuréel gi am na ay kuréel yu nekk ci biir euh, ngir nga leeral ko rek ñi nga xam ne ñoom ñoo lay topp mu leer ci seen bopp. kuréel la goo xamante ni Cheikh Ahmadou Kara moo ko taxawal. ci atum 1995. ci ndëgalu Serigne Saliou Mbacke borom Touba ñu ñaan yàlla yokk leeram. taas ñu ci barkeem li waral kuréel googu taxawit li ci sëriñ bi jublu woon mooy liggéeyal sëriñ Touba ci ndaw ñi nga xamante ni dañ leen a jàppee ñu ñu ñu sànku wala boog ñu jàppee leen ñu dëng sëriñ bi amoon yéene ñooñu nga xam ne société bi da leen a rejeté seen waajur amatu ñoom ci ñoom yaakaar te moom mu gëm ne nit sëriñ Touba du nekk ci xolom muy doon ko bon man ngaa def lu ñu bonal wala nga nekk ci lu ñuy bonal mais li ñu tuddee mbon moom kenn sëriñ Touba du nekk sa xol nga koy nga koy def mu ne nag moom lu ñooñu kuy defarit mhm. doo fekk li baax ba pare nga topp ci di ngaf nga fi mais da ngay fekk lañ bonal nga jéem a fexe ba mu baax mhm. loolu moo sabab mu taxawal diwaan mhm. ànd kook ay ndaw ñoo xamante ni comme ni ma la ko waxee c'était des bannis de la société dañ leen a leen a woon ci côté bu ne mu fekk leen ci ay barab yu doy waar ay barab yoo xamante ni doomu aadama waru faa dund wala bu fa nekkee di fa dund it mm, société dootu ko jëriñoo sa day yàq société am boole ci ñun ñëpp mu ànd ak ñoom ci benn kuréel yóbbu leen lansaar diggante quatre-vingt-dix. Hmm. ba quatre-vingt-quinze. Hmm. mu ànd ak mbooloo moom mu nga xam ne tàggat na leen ba yaakaar na la la mu bëggoon ci ñoom def na ko mu ñëw ci sëriñ Saliou. Hmm. jëbal ko turu mbooloo mi. ak euh, maanaam jëbal ko mbooloo mi. ak ni ñu toll. Serigne Saliou yëkkati recueil boobu di euh, di addiwaan. diwaan Serigne waa ko bind suma jumul. jox ko ko. naka boole naa leen ak moom. voilà kon Serigne Saliou ah. moom moo ko ci joxoon ndigal. moo ko ci jox ndigal. ba pare yëkkati téere bu tudd diwaan jox ko. bi ñu xoolee téere boobu. ci ay xët lim ci doon mooy juróom benn téeméer ak juróom fukk 650 pages. Mhm. mbooloo mi sëriñ bi àndaloon ci jamono yooyu noonu lañ toll net. ëpp mhm. ñu yeesunu mhm. kon foofu hasard amu fa. ci la diwaan soqe ko. boobu léegi di dox ba jamonoy tey. ci biir diwaan it. comme ni nga ko laajtee léegi. dafa bëri ay kuréel. kuréel yoo xam ne diwaan moo leen jur. ci mel ni Kara sécurité bi nga xamante ni tey moo waral coow li. am na it euh, euh, Nuru Jamal. bi ñu wax Cheikh Makumba Fall jiite ko. am euh, Jaysun mi 313 di li mu Badar. Mm-hmm. ku ñuy wax Diouroune Ousmane Ndiaye jiite woon ko ba wàcc liggéey ba waa léegi yàggul. mu mm-hmm. wutu neen ko fa ku ñuy wax sëñ Laat moo ko fa jiite. Mm-hmm. moo ko fa wutu. am euh, mélodie divine. mooy xale yi nga xamante ni sëriñ bi def leen tàggat. bëgg ñuy wéy sëriñ tubaa te bañ ko def folklore. amit ñu ñu tuddee PVD. ci mm-hmm. wàllu politique. ci wàllu politique lépp moo ko jur. Mm-hmm. waaw PVD parti de la vérité pour le développement. loolu lépp mën nañoo wax ne. Mm-hmm. ci diwaan la soxee ko ci ñu ñëw ci ponk bu am solo bi muy euh, daanaka li waral coow li muy centre de redressement yi nga xam ne amoon na ci euh, fi ñuy wax Daaru Salaam mooy bi nga xam ne nee nañ moo nekk Géejawaay euh, coow li ci am nee nañ fekk nañ fa yàmbaag yu mel noonu yan leeral nga ñu mën a indil ci centre boobu ak melokaan bi. waaw loolu ci dina ndax mbir balaa nga ciy wax day fekk nga xam ca dara. Mm-hmm. te comme que ci diwaan laa bokk xam naa centre yi kañ la taxaw. Mm-hmm. ñaata centre la ak lan moo tax ñu taxawal leen. ñaata centre moom am. centre yi ñeenti leen. Mm-hmm. Daaru Salaam 1. Daaru Salaam 2 Daaru Salaam 3 ba Daaru Salaam 4. Daaru Salaam 1 bi ñu wax ne fa la mbir mi amee amee wu fa. mu ngi amee ci Daaru Salaam 4. Mhm. su ma juumul mu ngi ci zone A diggante zone A zone B. Mhm. centre boobu defagul deux mois. Mhm. centre bu bees la. kon centre bi waral coow li centre bu bees la. centre yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu. muy Daaru Salaam nga xam ne mooy ndeyu centre yi. 2006 la taxaw. su ma juumul 2006 ak léegi 14 ans la fukki at ak ñeent. mu nekk biir Géejawaay amoon 6. boobu mooy Daaru Salaam 1. bu ñuy wax colonel dam Thiam jiite ko. Mm-hmm. ñu bëri yóbbu fa seeni doom. Mm-hmm. ñu bëri defaroo fa it nag. Mm-hmm. foofu moom yaakaar naa ne moom. ñooñu mën na leen ci génne. du ñoom. Daaru Salaam 2. bu nekkul mooy bi nekk Wakaam wala bu nekk Malika. foofu it ni Bébé rek la mel. immeuble la bu ñu équipé. la fa war a nekk ñu def ko fa ña fa nekk di di dund ci condition yu yu jaatu Daaru Salaam 3 naka noonu. Daaru Salaam bii nag. ci la coow li am. Hmm. te boobu amagul deux mois ñun ñii sax. Hmm. daanaka gaa yi ñu ko yëgal si ñoo ko xamandoo ak nit ñi ak sénégalais yi. Hmm. ñoo ko gisandoo ak sénégalais yi. muy image yu ñu ci jot a wane. du image yu kenn di rafetlu. waaye bu fekkee fa la amee. waaye nag mbir mi it boo ko dee topp ba ci biir. dafa am diabolisation. da ngay am xel ñaar ne am na foofu wala amul foofu. waaw mën na fa man na fa am mën na fa bañ am. li ma ci xaw a jaaxal tuuti rek mooy. video bi yëpp treize la. ci biir treize minutes yi. day tourner rek. maanaam image yi lay wan benn la. Mhm. gars yi nekk ci euh, cellule bi. Mhm. ñoom ñëpp dañoo taxaw. Mhm. cellule bi doo fa gis banc doo fa gis matelas doo fa gis lenn lu nit man a toog. te dama jàpp ab ab ab kii la noonu cour la rek boo xamante ni dañ ko kare rek. te dama jàpp ne ay nit boo leen dajalee ci ab bërëb war leen faa tëj. xanaa dana am fu ñu tëdd. te ña fa te ña fa nekk wax dëgg yàlla yóbbuñu fa seen bopp. kuréelu gi nga xam ne ñoo yor kër ga ñu fekk leen ci mbedd bi jugal jël leen dugal leen fa. Mhm. koo gis ci centre yi. Mhm. sa ndayee la fa yóbbu wala sa baay wala sa mbokk mun a jege. noonu la ñuy duggee ci centre la ñuy duggee centre bi. Mhm. centre boo ci mën a dem it da nga fay fekk ña ko yor. nga ñëw indi fa sa nit. signé cahier de charge ba fa nekk ñu tegal la condition yi ñu doxee ci centre ba nga mën ko nga signé ko. bàyyi fa sa nit ba pare di ko toppatoo. mais centre yi da ngay fay. dangay ngay fay. Mhm. fay gi it bi mu tàmbalee yàggul ndax santé bi ko sëriñ bi di soog a taxawal en 2006. Mhm. boobu moom gratuite la woon. Mhm. waaye boobu it nit ñi bëriwuñu woon. mais bi Sénégal yi demee ba xam njëriñ li ba tey ñuy wax ay 300 personnes ci centre yi 300 personnes ku leen dajale ci barab. fokk dina am lu ñu dundee. état subventionné wu leen. waa diwaan bi wala boog sécurité yor centre yi yoruñ lu ñu mën a dundalee nit ñi. ku yóbbu sa doom ci barab nag bëgguñu jàngalal la ko. yaakaar naa ne am na lu la fa war. ngi mel ni école publique bi. argent du contribuable lañ ko taxawalee. mais teewul tey jii ba fay dugal sa doom day day waaye dóor yi nag dóor yi ak seen ginnaaw. li ñu li ñu yi la même chose. Mhm. ñu ngi naan dañ leen a dóor. Mhm. mais déggoo ci ña nga xamante ni ñoom leen wane ci vidéo bi kenn ku ci wax na ma ci sa ku ci wax ci centre bi lañ ma dóor. waaye wane nañ ay ginnaaw yu dagg. ginnaaw yu dagg yi ñu wane it déggoo ku ne sama gannaaw ci centre bi la daggee. Mhm. xam nga sëriñ bi nit koo xamante ni dafa dafa dëngoon. nekk ci àll bi doon fàqamaan di mandi di xeex di sàcc di agressé kuy agressé da nga gaañ deneen la gaañ kuy sàcc da nga gaañ deneen la gaañ ku tàggook sa sago di xeex di toji butéel yor ay arme blanche da nga gaañ dineen la gaañ wane neen ay image ay nit ñu wane gannaaw ñaar ba ñetti nit wala ñeent hmm. ñu wane filmer ay liggéey yu nekk seen digg gannaaw. Hmm. mais amul lenn luy confirmer ne liggéey yi ci centre bi lañ ko jëlee ndax ñoo waxuñu ko. Hmm. mais am na ñu wax ne ci centre bi lañ nekkoon am na ñu ci faatu am na ñu ci dóor. tout loolu it am na ku ko wax. ay kooku ay waxam moom tey jii bu fekkoon dañu xool rek ci yoon. ay waxam dëggootul. ndax dafa def beneen vidéo. boo xamante ni la mu wax. dafa mel ni ku ciy dellu gannaaw. Mhm. te it nag bu ñu xoolee ci doon wax moom ni mu mel ci comportement am. Mhm. ci koo xam ne dañ la centre ba nga génne dañ la faa séquestré woon di la maltraité waroo mel noonu. Mhm. ndax nit ku set la. nit la koo xamante ni nirul ko sonn. il à l'aise li ma ci jaaxal mooy dañ ko jàppandoo ak ay moromam ci la gendarmerie def seen communique ne ils étaient plus de trois cent personnes. te waaye moom boo xoolee fa mu toog di wax. kenn dong la fa. wala boog ñaar. léegi ñeneen ñu fu ñu ne. lan moo tax ñu ber ko moom ak côté. Mhm. di ko laaj liste bi mu génnee ci poosam ne euh, fukki nit ak juróom-benn faatu nañ ci kanamam. Mhm. génnee benn liste ci poosam. Mhm. liste boobu boo seetee image yi liste bu bees tàq la. bind mu bees tàq moo ci nekk. te nee na deux ans la def ci centre bi di bind. fukki nit ak juróom-benn yi deewuñ ci benn bés xanaa. léegi liste boobu nan la mën a nekkee ci poosam moom mu programme ci ay numéro ba ci suuf. nga gis ne numéro yi ci suuf sax amul tur. lan moo ko wax ne ko numéro ay nit dañ fiy dee. Mhm. ba tax moom mu créé benn liste. Mhm. def ci ay numéro di ci bind ay tur. Mhm. léegi liste boobu moom fan la ko dencoon. durant deux ans. ñi nekk ci centre bi di leen xool. di leen lijjanti xamuñ ne liste bi xanaa moom yëre yi mu sol kenn du ko fóot. voilà mais mais mais bu weesoo loolu am na yàmbaa ji ñu ciy tudd. yàmbaa rek ci wàllu liste yi. moom ci jëm boppam mu tudd yàmbaa ji. ci biir centre yi. dañ koy fay jaay yàmba ñu ngi ko fay jaayee yàmba takk bi 2000 francs su ma juumul. Hmm. takk poon 500 francs hmm. ah, koo xam ne dañ laa téye ci barab. Hmm. xëyoo gontuloo fan ngay jëlee chaque jour takk yàmba boo jëndee 2000 francs ak takku poon boo jëndee 500. loolu sëñ bi amul inco amul cohérence kooku fan la jëlee xaalis boobu. ma ne la prison sunu prison Sénégal yi. dañ ciy dégg sax yu mel noonu. kon da nga bëgg a wax que ni dafa am ñu nekk ci ginnaaw di. diaboliser bien sûr am na diabolisation moom du lu ñu weerante. ndax nee naa la centre yi carte la. léegi boo amee quatre centres. Hmm. trois centres yëpp nekk dans les normes soo demee ba wane boo xamante ni peut-être la fa nekk jaaduwut. Hmm. mais waxalal yàlla ne kat. Hmm. quatre centres la ñu fekk ci turu Cheikh du Kara. mais trois yi moom normal na benn bi rek la ñu fekk normalut. mais dafa mel ni benn centre rek la sëriñ bi am. centre boobu la fa nekk dara baaxu ci. te centre yi daf fi 14 ans. nekkul ci àll bi. voilà nekkul Fongolembi. nekkul Matam mais biir Dakar la nekk. dans le département kon état kon état na ne centre yooyu am na. bien mm. sûr li mm. confirmation bi mooy président de la république maître Abdoulaye Wade jamono mi nekk président. Mm. en 2009. teew na. méridien ci benn bés bu Serigne Modou Kara organisé woon. Mhm. doon def concours ci taalif Serigne Touba. Mhm. journée de poème dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Mhm. président Abdoulaye Wade présidé woon journée boobu. ba fa ñëwee moo waxal boppam ñëpp di dégg ne. Serigne Modou Kara li ngay def ci ndaw ñi état mënu ko. état li man mooy jàpp. tëj soo génnee mën ngaa normal mën ngaa bañ a normal. yow nag li ñu seetlu ci yow mooy xale boo ci xastee bu génnee jëriñ réew mi. loolu état mënu ko. kon dèjà. moom mi nekkoon président de la république. moo xam loolu nekk l'homme le plus informé du pays. xamoon na loolu kay kon hmm. état yëgoon nañ ko. voilà ñu gis ne aussi euh, publier ngeen benn centre euh, yaakaar naa ci Malick 1 xaw ma 2 ci la nekk. centre boobu wute na lool ak yi ñu doon gis. Ah, euh, lan moo waral loolu wax naa la ko léegi sama njëlbeen wax nee naa la centre yi kat la. Hmm. benn centre boobu rek moo ci mel noonu. bu hmm. fekkee loolu ci centre ba la. moo ci mel noonu ndax dew ma fa man. ay image rek lañu gis ñun ñëpp. dama ne benn centre moo ca mel noonu. quatre centres yëpp ay immeuble la. Mhm. yu ñu équipe mhm. mu am ay jàkk ci biir. Mhm. am ay jàngalekat ci biir xale ya fa nekk seeni waajur di leen fa fekk. yaa ngi déglu doctor Niang bu suma assistance. invité nañ ko journal parlé bu. RFM TFM. moo waxal boppam. ne sama doom fa leen ko defaree. un docteur. Mhm. bu toll ci niveau boobu mu toll. dem ba doomam overdose dem ba ne doom sama doom da doon dee. Mhm. si centre boobu lañ ko defaree te police ñoo ma ne foofu baax na. voilà léegi sëñ Modou Kara ci biir déclaration am gis nañ muy jégalu lu muy jégalu. xam nga jégalu Cheikh Modou Kara moom. Mhm. moom naka jekk moom noonu la ko yàlla bindee. lépp lu luy indi coow rek moom lu koy fay Cheikh Modou Kara lépp loo dégg muy coow jëm ci këram. su yëgeeg su yëgul su defeek su deful la mu koy lijjantee muy jégalu d' abord. te loolu ñun xamee neen ko ko ci xol bu rafet. Mhm. xamee neen ko ko ci bëgg jàmm di ci dox di ci wax. Mhm. ndax nee naa la 95 ba léegi. Mhm. ku ko ànd ak ay ndaw. ndaw ñoo xamante ni dañ leen a jàppee sax ñu dëng. te kenn mësul dégg benn infraction wala benn musiba boo xamante ni def neen ko ci réew mi. boo xam ne mën nañoo wax ne lii waa kër Cheikh Amadou Kara ñoo ko fi def. amul. ku mel noonu nag soo soo nekkee ci am réew di fa def lu mel noonu. doo fa bëgg dara luy indi coow jéggalu gi it. weesuwul ni mu ko waxee. Cheikh mun la jéggalu. kilifa yi ci réew mi ak président de la république jégalu gi saanu ne veut pas dire que ni il se sent coupable. Mm-hmm. déedéet. Mm-hmm. daf ne. Mm-hmm. bi am mbir mi amee ak léegi nopp kenn noppaluwut. ñëpp ak may woo ñëpp ak may nemmeeku ñii ñuy ñëw ñi ma seet si. dama ci mujj sax am kersa. loolu moo sab jébbalu gi jéggalu gi hmm. mu mel ni nag daf am presse boo xam ne ñoom déformé waxi Cheikh Ahmadou Kara hmm. wala boog diabolisation dañ ko ciy jublu xëy na du ñëpp hmm. mais am na ci presse boo xam ne moom dañoo jóg uniquement pour diaboliser sëriñ bi ak déformer lépp lu muy wax am ñu jëm ba ne Cheikh Ahmadou Kara nee na il a il a mooy dafa dafa rus waxee ko moom comme par exemple maanaam li xew nii. Mhm. da ci da ci am gàcce. Mhm. te moom la wax na da ca am kersa mooy digg nit ñi yëng maanaam kilifa yi jóg giñ ci jóg. Mhm. ni ñu koy nemmee ko ni ñu ci sonnee. loolu la tuddee kersa. jégalu gi it la ko jëmee. mais waxul ne. moom dafa tooñ wala boog dafa yàq ba tax moom mu jóg di jégalu nit ñi. voilà voilà voilà gis nañ te aussi ci biir déclaration bi nga xam ne def na ko mu ne Serigne Touba doy na ko kaaraange ndax loolu day firndeel ne mission wu Sécurité kon foofu lay yem. waaw foofu it dafa am lu ko sabab. Hmm. Serigne Touba doy na ma avocat la wax. Hmm. loolu xam nga dégg benn ñenn ci press bi. Hmm. ñu ne Serigne Modou Kara ay avocat am dañ koo bàyyi. loolu diabolisation la ak wax na ko su dul noonu. ndax Cheikh Amadou Kara jëlul avocat ba avocat di ko bàyyi. ñun ñoo jël avocat ñun waa diwaan. ñun ñoo xool ne ñi ñu téye fële ci centre yi ñi ñu téye jàppee woon ci centre yi yóbbu leen teg leen loxo ci yàllu yoon. suñuy mbokku bi leen. kenn ku nekk ba ngay xëyee sa kër di dem di centre bi di liggéey danga nga demoon uniquement ci ndigalu sëriñ bi. Mhm. bàyyi jabar bàyyi doom bàyyi yeneen responsabilité. Mhm. ñu teg leen loxo téye leen benn barab ba a doon seen bopp mënatuñ ko. Mhm. ñu ne ñun kat li ñu war mooy taxawu leen première action bu ñu war a def ñu ne en tant que diwaan di seen mbokk taalibe mooy dem wutal leen ay avocat ci lañ jëlee engagement dem waxtaan ak maître Bamba Cissé ak maître El Hadj Diouf. ba ñu wax li ñu leen di fay waxit honoraire bi nu muy toll. Hmm. ñu soog a wëlbatikuwaat ci diwaan bi informé mbokki taalib yëpp ku ci nekk làmb poosam. Hmm. ngir ñu faxa lu ñu dajale jox ko avocat yooyu ak loo xamante ni dinañ ko jox suñu mbokki taalibe yooyu mu féetale leen seen kër. Hmm. bi yàlla dogalee loolu sëriñ bi dégg ne. ñun ñu ngi wut avocat wut neen avocat pare. ci la sëriñ bi ne wutloowul kenn avocat. boo déggee li wax daf na wutloowuma kenn avocat waxuma wutuma avocat de. kenn avocat ce qui veut am nañu wut avocat. man sëriñ Tuubaa day na ma avocat. loolu mooy indi loolu. yéen laataa ngeen koy wut lu tax waxu leen ko sëñ bi. waaw dafa dafa am loo xam ne bu la ci nit ki tàggatee. Hmm. nekkul loo bëgg def rek tàggu ko. Hmm. ndax ni ma la ni ma ni ma la ko mën a waxee fii ma féetee ci diggante Touba ak Mbacke ak Daaru. Hmm. bëri na action yi ma fiy def sëriñ bi du ko yëpp léeg-léeg ñu dem hôpital bu Mbacke set setal ko. léeg-léeg ñu dem marché bu Mbacke set setal ko armée léegi fu ne ñu fay dugg di ko set setal di def ay don de duñ ci tàggu sëriñ ndax ci loolu la ñuy tàggat. nekk sëriñ nit ki bu la xasee teg ci yoon ne lii nga war a def da leen woon yoon bi mhm. mhm. nga li nga def mhm. na résultat positif wala am na te ni dañoo jàppoon ne war nañoo toog di déglu ndigalu sëriñ bi suñuy mbokk taalibe leen am neen droit taxaw leen ni suñu mbokk taalibe di amee soxna ñu jóg dem fa te duñ tàggu sëriñ bi nu ñu amee naqar ñu jóg dem fa duñ tàggu ko tegoon voilà euh, ngir euh, jeexal yéen kàddu soññee yëkkati jëmale ah, ko ci mbokki taalibe yëpp. waaw mm-hmm. mm-hmm. kàddu soññe yi moom. Mm-hmm. du ma ko jëmee ci lu dul ci ma bokkal sëriñ bi te sañ leen a wax. Cheikh du Kara bëgg-bëggam. mooy fu mu toll di jàllale njàngum sëriñ Touba. fu mu toll di liggéeyal sëriñ Touba anam bi mu tàmm nag mooy li bi mu tàmm tànn ko mooy liggéeyal ko ci ndaw ñi. ndaw ñi nga xamante ni it xëy na rëccoon leen seen i waajur wala société bi. mu bëgg leen a delloo société bi ngir ñu jëriñ réew mi. loolu lim ci am ay résultat yu positif kenn moom laa wax mu toll. ñu nekk ci réew moo xam ne nag dafa mel ni tey jii fukki weer ak ñaar fukki weer ak benn yëpp boo ci nekkoon di def lu baax. ba weeru mujj yi nga def ci benn erreur bu ndaw. fukki weer ak ñaar benn yi jàll yëpp dañ koy daal di suul. mel ni yow li nga def tey jii ci erreur. Mm-hmm. lépp at mi yëpp noonu nga noonu nga nekkee woon. Mm-hmm. loolu nag nekkul muy jëmale am réew kanam. mais mm-hmm. heureusement. ñu am koo xamante ni yàq der mu yombul. ndax amul lu nit mën a duut baaram ci lu ñaaw ci réew mi ne moo ko fi def wala moo ko fi lu diwaan bii nga xam ne moom la taxawal liggéeyal Serigne Touba la ci jublu Kara sécurité te wax naa la ko. nee naa la Kara sécurité bii ñuy wax naan ay milice laag dañ ko war a tas ak nangam su miloo lañ lañ mën. mais ngëm-ngëm gi. Hmm. bëgg yi hmm. yaakaar gi ak doyloo Cheikh Ahmadou Kara taral la ci nit manul. Hmm. bi leen summiloo mbubb yi rek ñu summi ko. waaye xool bi mooy li am solo te xol yi jox neen ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. kon sama mbokk taalibe yi li ma leen di wax. mooy ñu nit ñu defaraat suñu toogaay tàmbalee ko sama bopp. defaraat suñu doxalin. defaraat suñu waxin defaraat suñu lépp. te xam ne ñuy wut sëriñ bi moom leer na leen ne sëriñ bi amuñ ci moom accès mm. mënuñ ci moom dara mm. ci ñun rek lañ ko mën a jaare ñu ne waruñu leen waruñu leen mën a tijjil buntu boobu mm-hmm. loolu am lu may wax sama mbokk taalibe yi su ma leen ko mm-hmm. leen gërëm bu baax yéen mm-hmm. leen ko sant ci bi ak leeral yi nga xamante ni yéen a koy sàkku ndax ku bëgg lu leer da ngay ko xam laaj ko mu wax la moom it lam ca xam macha allah jaageen jëf voilà jërëjëf euh, Souleye ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moo jiite zone penku euh, Diourbel Touba Mbacké Daaru Muxti ci waxtaan nga xam ne rek doon nañ ko sekk ak moom jëmale ko ci centre de redressement yi ak coow li ci am am euh, diggante yu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké yaakaar naa ne li ngeen bëggoon a xam ci ay leeral tamit am ngeen ko ñi ngi koy sant baax di ko gërëm ci wuy si gi euh, sant Moudou juuf mu nekkoon ci caméra bi sant mbay Seck ak Cheikh Gueye di leen jox daje incha allah beneen jotaay jërë ngeen jëf